bismillah sa sama wax sama ci tudd tudd boobu arahmaani kadaal xeer mi naa ñëpp jaar ñaar ay kadaal xeer mi laa jaalaata saaru makka la ba tey da jàng leer ala taaka naa dikkal na la hadisu xaaseeti solay de sëy man ndax mas ngaa dégg solay tudd yàlla bu jënañ ko xaaseeti ji fi aji muur ndax mboolem mbindeef yëpp keroog mu muur leen ki ci dëkk bu jéewu ni kanam yow may sin def keroog xaa chance mooy xalaat lañu rek keroog pencam yàlla am par kanam yoo xam ne dañu torox ba a topp mooy xéefare ñu lay wedd yàlla mooy yàlla dañ jàkkaarloo borom ba xam liñ ko def yëpp ba noppi dañuy teew fi kanamam te mënuñoo daw dañuy torox bañ a topp de ah ñu def ñu way fan lañu way jëf lañu naasi ba suñu way fan lañu de te yore par kanam dara la jëf-jëf bu jafe mooy bañanteeg kàllaaya ak gax yi ngeen di xeewe liggéey lu bëri laa danañu xaraf naaram safara am yaa xam ne daa ñu dara am xar kanam yoo xam ne ca safara su tàng sa lañ leen di tànn rek suuf saa dana nandal leen ñu ne ñu ci seen rek daa ñetti suñu tax a tàng rek danañ leen nandal ci seen rek dana ca safara xam ne moo gën a tàng sax safara te danañ ko naan rek day sa loolu ngeen ñaa leen taamu ñam illaa xam-xam duñ xam dara luñ lekk lu may dégg ñu tuddee xam-xam moom moom rek bu ñaan lu lekkee moom la rek daal sax du ko lekk ngir def bu daal di ko ngañ ne woo ñoom rek duufal ci mu kenn wala war ñu jaañ ci moom ñun jaañ ci tuuti rek boobu ñam day de ku ko lekk du tàng suur dañu yàgg yàgg du la tax a duuf rek te ñoom ñooñu safara nag dañ ko lekk mu ci tuuba dalay tax ñu di ko lekk rek ndax lu lekk lekk duñ suur ñooñu ñooy ñu doon wedd yàlla bu jéewoon ay kanam yoo may dindi rek la naayimatun way rafet lañu naayimatun way xew lañu de xar kanam yi ñu gëmoon yàlla topp yàlla nag yàlla ñu ci yàlla boole ñooñu ndax ñu ngi teewe ah wér na gërëm nañu li kaw yaa ci jëf seen te kanam ñoom danañ kontaan te lañ defoon ndax moo leen may yoon bi ñu gis keroog ñu gërëm seen de foofu rek la gërëm sa bopp baaxee si jana si nooy ci aljana yaa a dayoo noonu de laa tus ma wa defu dégg yaa ci laa xiyatun bootoo kenn du fa dégg waxi caaxaan boo déggee baat yàlla rek salaam la fiihaa aji nekk la jaal jana aynin teel a jaar yëpp si daal di daw teel yaa ngay daw ànd ak wàllu yàlla ci biir àjjana fu ñu dox ñu dox ko teel fu ñu leen soxlaa rek dox lee daal di fees tamit jëloon fay ba tëjee mel ni weeru Badar ñu jëndal seen sëng te aji nekk la jaal jana suruun ay lal marfaat yi ñu yëkkati de te xam na dañu kawe kawe jëmm ak daraja ak àjjana suruun ay lal marfaat yi ñu yëkkati de te xam na dañu kawe kawe jëmm ak daraja ak barab yëpp mooy gudde nañu diggante bi lay asamaan waaw waaw nag ci goble moo ko waxtu ñu tëral ak goble yoo xam ne ñu nga am rek ànd ak soole soole suñu ballu jëm itam goble yaa nga rang ànd ak ñoom rek waa ci taar bu gën a jéggi rek bu soxali dag naan rek kaas ba dal di feesal boppam ci naan nga nga bëgg lem ndox lem meew lem lem lem sangara ba mu jëbale ko mu am capp jëf ak naan doo naan dem jeex te mandi wu la léegi naqari doo naan boo mandi dara di ca def léegi naqari la rek di ko laajal moom yàlla waxutu lu koy naqari dara dara dara dara tarfata layin noonu la jàng war a mel léegi wala maa reku ak ngegenaay mos ko fa tamit dañuy dagale ak ngegenaay yoo xam ne dañ leen a rangale ci wetu bopp bi ci wetu tànk yi waaw ak ci wàllu bu nekk foo junni a ngegenaay ngi na wala dara bi ak kat yi mat sa ñu lal de ak kat ñu rab waaw xam ne moom la ñuy lal ci seen i rek seen seen i ruum de yàlla ñu yàlla boole ci ñoom afalaa yanzuruna ndax duñu seet saaru Makka nee naa leen fokk mu jàngale yàq ya wax na alaaxira aljana ak safara dudd na ko mi ngi leen di kattanal wéetam yàlla la ko moom rek a moom rek a yàlla afalaa yanzuruna ndax seet tuñu ñoom xeefar yi ma waaye lu te fokk lu xam ne ka bindee ko doo seet bàyyi boobu xeeñu boobu ñu ko yàlla bindee nga xam ne tudd mu gëlëm kenn la te wér na te mooy jaamu bu tax gëlëm moo gën ci mboolem jur gi jur ak kat ku ko yar kenn ci yéene nga ca bëgg benn nga yar ko ngir xawam loo lépp loo xawam loo jub doole xawam loo gën a ko ko xayma wala nga di ko yar pour ñu utam soow ci moom lu ñu rafet gëlëm a jeex ko soow wala nga di ko yar ngir di ko waar daa ba ñu war di tukki gëlëm la man ci loolu mu dox def mu gudd te gaaw te la sonal bu ta wala nga di ko yaar ngir bés nga rey lekk yàqoo lépp lu muy rendi jëlee ma la gën a bëri yàq wala nga di ko yaar ngir di jësal say bagaas boo bëggee tukki yi sas yëpp gën a ma jëlaat sas kon nag moo gën bàyyi ma yëpp ci maanaam mu nekk ba noppi dañu ne moom ab ab bantam jooju fenn lu mu jar rek mën na jaamu te mën naa muy xiif biir bu yàgg loo am ne beneen daay bu ko bu ko muñee moom dee mën naa naan biir bu yàgg beneen daay bu ko muñee dee te yi nga xam ne daañu daan yar yëpp jëlee na gën a nangu moom la ci yàlla gën a tàggat naka la ko doon yàlla yóbbu ko bu fekkee ni gone nga gën a tuuti bu nga lay gën a sa gëlëm rek gëlëm nga topp te gëlëm mboole ni ñuy war moom rek a ci nangu tëdd nga war mu jëm ak yow te moom gëlëm lépp lu mu jot booba xobal lu mu bañ lu nekk mën na caa dund dund yombee noonu nag taa na njëriñ nii yàlla na ne da ngeen yar guddi gët ngir taaru ca lakum fiihaa jamii'un minhu turihun wa minhu tasrahun ñu yar ak guddam pour di ko wan nit ñi ñu taar fi moom lépp lu ñu taarloo gëlëm a ci gën moo tax dana buuru njëkk ya ku ci daa a maye may boo xam ne da ngay xar baax ngay maye téeméeri gëlëm téeméeri gëlëm suñ ko amalee fii ci bàyyi bi dana fees benn bëtt nit ñi moo tax itam sariyaatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko muy dee bakkan téeméeri gëlëm dara ñu ca wala am waaye ci luy fees bët mu ne itam wa tahmilukum ila baladin lam baa balighihi illa bi shiqqi l-anfus loolu itam gëlëm a ca man lu nekk de bu fekkee ni waaye ñun dañu dem Makka rek la ñun dañu la war a yóbbu Makka daal gën a ma ci mën bi mu boolee mala yooyu yëpp moo tax borom baax na laa afalaa yanzuruuna ilaa as-samaa'i ñu ngi leen di bind ci gërëm kayfa xuliqat naka bindee ko soo seetloo bind gërëm boobu nga xam ne ci bind gërëm kay kenn la te wéet na te rek moo yore jaamu de way la sama yi te ngeen koy ci asamaan kayfa rufi'at naka yëkkatee ko de xool la asamaan si kooku moom du gan bët bu set wax ko xool leen ñu ko yàlla yëkkatee dooleem rek wala li waaye da ngeen seet dem ci daj yi kayfa nusibat naka fanteesoo wala laa ni dañ seet dem ci suuf kayfa sutihat naka bindee ko rek yàlla ñu bind gëlëm mu mel na la ñu mu bind asamaan si leen tiin bind nga xam ne moo nekk ci sa ndeyjoor sa jamono bind nga xam ne moo nekk ci sa ron su ngeen seetee ne kattan lu mat moo def loolu ak xam-xam bu mat te ki def loolu kooku kenn la te wéet na te moom rek mooy rey di ko jaamu de war ñoo jaamu ko dafay waa gëlëmam xaaliban su waree gëlëm di baax ci àll bu fekkee am na dara ci xalaat buy xalaat lu mu njëkk a gis gëlëm ji a gëlëm gëlëm gi nga a wax yëpp lu ci ne doy la waar loo koy fekk wëttee gis asamaan dina tiim moom itam mbaar mu ndayam yoonu gën nekk fi ca asal ba léegi bënn tànn yetu tànn fotteeku tànn màggatu tànn nga xam ne loolu it xàttan na ko def boo fekkee a di ko jaamu ba tey yaa ci kaw gërëm nga la goo si gisal la yor wala gis la càmmooy gis dañi dañu taxaw foofu mokk leen si sam ak nañ leen samte ñu nekk ca àll bi rek ñu ñëwee ñu ñëwee du dalee ñoom ña nga fa nga xool ci suuf muy jënd gi nga xam ne ci la ñëpp da nga dandi am benn xam-xam mooy ci def lii camale sa wér na te mooy yow jaam rek moo tax yàlla wax nañ na wa adeer yow yonent ma an tana sa yow lu dakir la yónni ngay waade lasta bi mutakirin nañ dem buñ bëggut maa ngi lay gàllankoor ñu am waaye joxe rek moo la laala fi nag man kaw laa ko dëgg nangu wax ko baraka lool daal Alxuraan yaa ngi fi laala dina bugal te yàlla ala xam bugal nag dara ma yaa ngi màggale waaye nag boo waatee ku gëm de baax na waaye ku gëmut fekk naa moom danaa ko dugal ci dugal moo xam ne mooy dugal ma gën a màgg waaw mooy dugalam safara la dugal mu ndaw mooy dugal mu jaay dina rey ngeen jàpp bi waaye nag dugalam jaalaale inna ilayna naka jëm na fi mu yaa ba ma dellu fenn duñ dellu jëm ci kenn ci man la ñuy dellu ci jëm ma ngi naa taqwa mooy sababu bi saa seen ak taytande yàlla la ñuy dellu yàllaay isaabal boppam yàllaay faya boppam jiital na xabar bi nga takk ñu dellu ci man la ñuy dellu kenn du isaab man yàlla maa isaabal sama bopp yàlla mu mag ma mooy jaam bu nekk lépp loo ma sa def ak loo ma sa wax yàllaa koy reglante yow ci pencam yàlla de